diggante Mor Kankane naa leen nag mbokk yi Walub la ku ñëw ca Pind ngay yem chaque dimanche Serigne Dioum gis ngeen combat bi nga xam ne moom moo fi jàll léegi ci diggante Dame Sène ak Tonnerre far Dame moom moo am ndam ci kaw Tonnerre beneen combat bi diggante Nokia la ak Begaay Begaay moom moo am ndam ci diggante ci kaw Nokia Sokh 2 ak ki nga xam ne moom mooy Petit Lo Sokh moom moo am ndam ci kaw Petit Lo ak yeneen combat yoo xam toftal nañ ko ci Alioune Seye Junior mi ngi topp ci ginnaaw kot som Ron Ron nag ma fàttali leen na mag la ci Abdou Diouf bu waalo waalo waalo la moom Ron di kot su Papa Dia Alioune bu waalo Mor Kang Kang ak Alioune Seye mi ngi bàyyeekoo yaakaar naa écurie Badiane Dione Alioune mi ngi bàyyeekoo Waalo Alioune Seye moo ñu wan ginnaaw moor Kang moom la ñu jàkkaar lool Alioune Seye mbokk yi ma fàttali leen mag la ci Fatma Dia bu Kewel gi info Alioune Seye ak Mor Kankang ndeysaan Mor Kankang ak Alioune Seye arbitre bi soufflé na lu waay doon waaj ay weer di ko waaj ay semaine ñi ngi koy waaj ay bis Mor Kankang ak Alioune Alioune Seye ak Mor Kakan Alioune moo ñu won ginnaaw moo ngem boo weex li Mor Kakan moom la ñu lool moo ngem moo moo ngem boo weex li tamit am tojtal bu noir bi def tent bi ci bopp bi tax ndàkk ci bopp bi Mor Kakan ak Alioune Seye Mor ak Alioune moor Kang Kang dagg na lewanto bi Mor Kang Kang ak Alioune Seye maa ngi nuyu sama waa dëk waa mi xëy lambaay maa ngi leen di nuyu bu baax a baax moor Kang Kang ak Alioune Seye Mor Kang Kang ak Alioune Seye ndeysaan combat xale la ak mag Alioune Seye Signor ak Mor Kang Kang ndeysaan ñi ngi leetoo Mor Kang Kang ak Alioune Seye lu ne waxante nañu ko Bamba Thiam chaque dimanche Serigne kon da ngay loolu dëgg la Bamba Thiam Bamba ba xam nga ne chaque dimanche Serigne Dioum wallu teen la ku ñëw ca pind ba ngay yem Bécaye Bécaye daan fi Nokia Sokh Ndoye daan fi Potilo Boy Diop daan si armée Kankang ah Mor door na léegi Mor Mor Kankang Ali Sey Mor Kankang Ali Sey jàppante nañu Ali Sey ak Mor Kankang Ali Sey ngay kor Mor jël na léegi Mor Kang Kang ak Aliou Seye Mor Kang Kang Aliou Seye Mor ko Mor jël na Aliou Seye attention Mor attention Aliou Seye Mor ko Aliou Seye rasu na ko fu Mor jëm ak moom da koy jabaxal maninam la Aliou Seye lu mu entraîné la ndax maninu Mor la Mor ko ay waay Mor daan na ko waaw Mor daan na Aliou Seye Mor jël bu amul werante dara xewut dara xewut Mor kankan daan na Aliou Seye jël bu rëy dara xewut dara xewut Mor kankan daan na Aliou daa ma wax Jombe. góor kat kat